jaajëf ba léegi ñu ngi fii ci euh, stadium Iba Mar Diop jàkkaarloo ak champion les juniors champion ziar naa la. delloo ziar. maam nga jàmm. am naa jàmm kay tawfiix bu baax mbaa yéen tamit am ngeen jàmm. su ma la laajee lan moo la andi stadium Iba Mar tey loo may tontu. face to face. yàkkan. man ak fils de Badler. <laughs> yem nga client mbër. non bi toj na àll bi. moom moo yeb client. toj na àll bi ba mu nooy rumbux. chaque jour moo na ma arène bi moo ci des. chaque jour moo wax ñii ñii ma ne leen. ngay bëri koo xamut dafa dafa miiti dafa jafe te man dama koo xam te xaw ma. nga bëgg a ne xamu la. xamu ma foo teg loolu. c'est parce que keroog rek wax naa ko sama gars yi man du ma nit réseaux sociaux lu ma def dugal ko ci réseaux sociaux wala woo gars yi ñu ñëw def ma interview ma loolu du ma nit yooyu man sama kanam gi kenn mosu koo gis ci réseaux sociaux. te jour ko mais loolu nag ci loolu nag ci làmb la bokk parce que làmb il faut nga jég il faut nga ñemee bi ñu lay wone mënuñu ñàkk. non mais affaire day foo xamante foo ñu pro ñu nekk ay professionnels. des fois nit man liñ ma jàngal samay kës des fois nit sa forme nit mën na cee entraîner jour combat mu ñëw mu daan la ci forme bi mais professionnel ñëpp ñu ngi gis boxeurs yi ñëpp seen entrainement bu ñu demee ba entrainement ba pare ba combat bi jaal ñuy soog a wone seen entrainement seen séance entraînement. man noonu mais xam nga Fils de bat leen bu baax. xam naa ko bu baax. loo xam ci moom. benn song la am riñaan. benn song benn song. te man moom jour boobu damay ñëw taxaw seexal ko samay tànk bu ko jëlee de jël musibam. yow kan moo wax fii de fils de leen benn song la. boo xam te xamuma di woo sama mbokk njaago yi nag di leen naan bay ci ñi ma njaaku man du indi bi euh, ci combat la da bi lii nga tuub njëkkawaat fils de Balla leen sama mbokk soosey nag waa SB RAS si mani biraasu maa ngi leen di woo bu baax mbaal killa mbaal tentula mbaal jeela samukunda tanaaf mankolikunda dar binako librasu mbal bi killa tout allen na allema be combat inshallah ala barka ala barka la baa nga noona Mansour yaa ngi koy seen est que gis nga xale bi ma ngay jat ma ngay léemu am na lu muy wax ma ngay wàññi ca baaram ya fils de Badlen a ngi noonu nee naa leen toj na àll bi toj na mbapat yi toj na drapeau chef de l'État dend ak maam baaba dend ak doomu ndeyam maam baaba moom tamit am combat ci journée bi tas yaakaar leen àndal seen xarit seen doomu ndey saan xale yi gannaaw raay leen jóge nee naa la foofa champion yàgg na faa takke champion yàgg na faa ngemboo champion yàgg na faa yóbbu ndam mbër maa ngi lay ziar fils de Batlen. maa ngi lay ziar delloo yaa ngi am taw fi. maa ngi sant bu baax a baax a baax. noo noo waajee combat. comme ni ñu doon waajee yeneen rek yàlla xam na comme ni ñu doon waajee mais ki nga war a bëreel sànq damaa waxtaan ak moom mu ne ma moom dalaa xam teew xamoo yàlla xam na ne maa gën a xam fuuf fuuf benn bu ma xam xam naa ko ñett yàlla xam na ko maa gën a xam téeméer yoon dama doon toog di ko seetaan muy Mbapat Casamance xam naa ko baax a baax te baaru sule dina xam na xam naa ko allah. kon da wax ne mag la. <laughs> yéen xam ngeen xam ngeen ku nekk maa ku nekk xale xam ngeen baax man en tout cas 24 am ñaar fukki at ak ñeent. 24 ans laa am te bu àddu sulee dinaa xamal ko 24 ans laa am du moroom moo mag fuuf maa ko mën maa ko bu doole maa ko gën a comité maa ko dàq bëre te bu sulee moon ko damaa wax damaa wax wax ba nga xamante ne bii euh, dafa doy waar trop nee na ma benn song nga am muy riñaan. <laughs> waaw moom lool la gis nañ bàyyi ba jour ba rek incha allah moom na jàpp lool rek ba ba jour ba incha allah le 19 soreetul. Mhm. xeex lay jeexee wala bëre. non lu mu ko bëggee rek lu mu ko bëggee rek man samay combat arène yaakaar naa seetaan ngeen ko yéen waaw yéen xam ngeen xam ngeen nu mu may def man xam ngeen ko man sa at bu sifflé rek maa ngi sa waaw. bu at bi sifflé lu ci moom yow la. moom laa lay wax bu at bi lu mu def daanu incha allah combat bi tas laa koy bëreel tas moo ko moom barki Serigne Babacar si tas laa koy bëreel combat bi tas moo loolu xanaa dafa am nu mu fa demee. waaw dafa am dafa dañoo tëdd ba guddi mu yem mu ma wax moo tax ma ne combat bi combat ko wax combat bi combat am la moom laa koy waaw waaw bi sama combat la xam nga Alphonse dafa baax di wax rek olof Ndiaye nee na lu bay lekk bay rëppi rëppi xar lekk na ko ne mut. bu xeexee fii sa ban leen du ko bu bëree mu daanu. di ñaanal ah. papam Idrissa Boro Ndiaye fu mu tëdd yàlla yërëm ko jégal ko di ñaanal yaayam ne na Dacosta xam nga waaw yàlla bàyyi ko ci kanam ba mu fekkee njëriñam.